صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر bi ci njëkk mooy dañ ciy ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ne moo fi toogee jotaayub Serigne Touba ci ak mën a defaram ak bëgg lu baaxam ba dajale ñaari président yooyu nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ci bis bu historique boo xam ne ni histoire dootu ko fàtte Sénégal benn yoon muy jumaay ji naan ñu doon ko inauguré liñ ko liggéeyee toll ci vingt milliards CFA muy liggéey bu am solo ñu di ko ubbi mu defaat fa jëf juré ju toll noonu yoo xam ne Sénégal gépp ko bëggoon doon ko xaar ndax Sénégal dafa toll foo xam ne jamono ji réew muñ naan yaa ngi am pétrole yaa ngi am gaz di tudd fer jàpp nañ ne li ci am solo rek mooy ñun ñëpp ñu bokk ànd nekk benn mën nañu bañ a dëppoo nag ci ay xalaat sax waaye nag tension bi nga xam ne moo fi amoon ñu wàññi ko ba li nga xam ne yor nañ ko muy bëgg a ñëw ñu mën ko jariñoo ci anam bu gën a rafet te loolu mënee su ko def te dajaloo amut nekk benn amut loolu fu amut rek liñ bëgg lépp duñ ko mën a am kon Cheikh Mamadou Mountakha la ñuy ndokkeel ba pare door sant ñaari président yi muy président Abdoulaye Wade sant Sall tamit ci woyefam ci woyofam ak nangoom ak déggal gum déggal si Amadou Mountakha moog président Abdoulaye Wade yëpp ñu dajee foofa waxtaan fa mu gunge ko yóbbu ko ba këram barki Demba Ndiaye ñu gisati mu ñëw ci pale bi dalal ko ñu waxtaan waxtaanee réew mi waxtaanee problème mu Sénégal waxtaanee problème Afrique loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne moom la Sénégal mérito moom la war a am kon nag du ñu def lu di ko rafetlu di ñaan yàlla bu seytaane mën a duggati ci diggante bi mel noonu ak yu mel noonu bi ci des itam mooy bàyyi gi ñu bàyyi Khalifa Sall tamit bàyyi gu am solo la. ndax moom itamit bokkoon na ci li nga xam ne indi woon na tension bu mag ci biir dëkk bi mais ci grandeur président Macky Sall ginnaaw bi nga yoon def na li ba noppi yoon may ko moom tam mu mën a gracier mu gracier ko génne ko ci anam yu rafet ñu ngi ñaan daal jàmm ji daal yàlla na law te sax Sénégal lii lañ xam moo fi am moo fi moom mooy li nga xam moo fi war a am kon nag yàlla nañ yàlla musal ci seytaane tàppe xol yi ba lii nga xam ne ñu ngi koy séntu muy ay njëriñ te yàggatul dara ko mën a exploiter commencé koo ñu mën koo jëriñoo ci a rafet président Macky Sall nag xam nga day nit koo xam ne nit ku baax la wax dëgg yàlla euh, nit la koo xam ne itam nit la koo xam ne ku bëgg lu baax la euh, màggal gi ñor gum ko ñor ñun xam nañ ci dara ndax jëf jim ci jëf dara ump ñu ci ñi ko jiitu woon itam wax dëgg yàlla daanañ def lu bari ci lu rafet waaye nag anam bi mu koy defee nag moom ko waxal yàlla rek xam ne kenn ku fi mas a jaar ku koy defee noonu amut mooy mboolem koo xam ne nii ci kilifa yi la bokk muy ci xalifa yi nga xam ne ay xalifa yi kër sëriñ Touba lañ ci seex si ba ci xalif général day bàyyi faa ak ñoom bu ñu ku mën a doon rek ci ñoom rek dana seq ak yow teraanga joo xam ne ci màggal gi yoonu kenn du ca nekk dana yebal délégation bu discret ñu indi ko yóbbu ko jox leen ko mu jàppale leen ko participer ko ci màggal ki muy anam bu rafet a rafet boo xam ne nii daawuñ ko gis ak yaatal gi nag ndax daana am waaye yaatu gi mu yaatu nag daawul yaatoo noonu bi ci topp itam muy taalibi Serigne Touba yi nga xam ne ci dëkk bi am ci ñu ko seqal ñëw ñëpp ku ci ne tamit wax dëgg yàlla lam la war a jàppale ci màggal gi jàppale na la ko mboolem ñi nga xam ne ñoo def ci département bi di ay responsable am yoo xam ne tam dañ koy jàppale ci wàllu liggéey bi muy liggéey réew mi kenn ku ci nekk am na loo xam ne nii jot nga ko mu jàppale la ko bu loolu jàllee tam ci wàllu li nga xam ne moom mooy euh, ceeb bi nga xam ne dugg na ci Touba itam wax dëgg yàlla ku ci ne xam na ne li ci war a jot ñëpp jot nañ ci ngir mën na def màggal gi nañ ko bëgg a defee kon nag amuñ lu ñu di ko sant di ko gërëm di xool ni mu jàppee Cheikh Mouhamadou Mountakha moo tax ñun tamit ñu téye ko noonu ndax kenn kenn ku nekk sa kilifa rek nga am te gis nañ ne Serigne Mountakha Macky Sall jox na ko cëram jox ko wàccuwaayam déggal na ko def na ko waajuram def na ko si Serigne Mountakha itam def na ko doomam doomoo na ko mi ngi waxtaan ak moom saa su ne li mu koy digal itam lu ci lépp lépp lépp lépp lu baax la te lépp mi ngi koy jafe bi mu ñëwee itam engagement yi nga xam ne wax na ko ci Touba nasar ko bëgg koo def itam déggaat nañ ko ndax ku ne xam ne dëkk bi am na problème assainissement loolu mu jël ci engagement ferme yoo xam ne nii xam nañ ne dana ci def loo xam ne lu kawe njort lay doon ndax nit ki kat bu la joxeeb añ bu la jigee reer da ko mën a gëm ndax autoroute Ila Touba gis nañ ko yeneen yi nga xam ne def na ko ci dëkk bi gis nañ ko ba ci hôpital bi nga xam ne ñu ngi koy tabax muy bëgg a mu nekk ci mu nekk en construction ku ne xam ne ne ma ngay avancé boo fa demee te dëkk bi itam wax dëgg yàlla aaji woon a fajukaay bu mag mag boo xam ne képp ko feebarati man faa fajoo kon nag bu waxee leneen dañuy mën a xam ne loolu itam lu muy jëf la la si Sëñ Muntaxa waxoon rek nag mooy li nga xam moo moom Sëñ Tuubaa lay jëflanteel Sëñ Tuubaa nag ku jëflanteeg moom moo lay fay moo tax gis nañ ne saa su nekk ndam rek lay am ndam yooyu itam ñu koy mu gën a yokk xanaa leen rek nag moom danañ ko ci yokk loo xam ne dañ ko ko adressé nag mooy ñi ne ci dëkk bi am na ñoo xam ne ni ànduñu moom waaye am na nag ñu bari ñu ànd ak moom ndax biñ amee élection yi ba mu jeex fii 69000 voix la fi am loola nag ay nit ñoo jugoon di ko liggéey dugg ci ay nit di waxtaan ak ñoom di leen convaincre bañ jox ko seen kàddu ñooñ itam damaa jafe ne xëy na ñàkk coordination rek la waaye rafet na bu fi ñëwatee mu jël ci ay quelques person yoo xam ne nii ay jàmbaar lañ ci waar wi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom saafante ak ñoom waxante ak ñoom ñu wax ko mu tontu leen bu ko defee ñoom itam loolu dana nekk ab sac ci ñoom dana nekk loo xam ne itam maanaam ñoom dana leen gën a soññi bu ëllëgee tam ñu gën a mën a nekk ci waar wi defe naa ne loolu lu ñu lu ñu war a waxtaanee la ñu ngi koy adressé ne ko ñu ngi koy ñaan bu benn bu ñëwatee Touba mu ubbi ay buntam yoo xam ne nii ngir mën a jël ci ay quelques responsables yoo xam ne ay responsable APR lañu fi nekk di di ko di ko sonnal guddi ak bëccëg mu recevoir leen waxtaan ak ñoom salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar